bi nga xam ne mooy borom mbindeef yëpp te moom kese ak yonentoom ak jullit ñi ñoo am izza te bi ko waxee mooy tedd di julli ci yonente bi alayhi wa sallam ak ñoñom ak ci saxaabaam nga xam ne ba yàlla nammee ci mbindee bi ñu ak lu baax ci yonent boobu la ko jaarale bu tasaare ko ci àddina bi yëpp ay ñoñom daal di sàmm loolu sàmm bu gën a rafet ak saxaaba yi ba yegg si ñun loolu ñu ngi koy sante yàlla subhaanahu wa taala loolu ñu fàttaliwaante ci loo xam ne cosaan bi yëpp ci alquran sunna lay bàyyi ko kon ne yàlla dañoo may am ndaje ci màgg bii di bis àjjuma kon waruñ cee def lu dul ñi jéem fexe ba jullit bi yóbbaale dara loo xam ne dina ci mën a sukkandikoo pour yenn yi xew ci àddina mu xam moom lan la ci war a def maanaam bañ cee loo xam ne ëllëg borom bi bu ko laajee am li muy tamit ñi fàttali loo xam ne tamit danga ci mën a sukkandiku ci sa dund ba boo borom bi mu gërëm la ndax saxaaba yi ridwanullah alayhim ajmain ci loolu lañ nekkoon li ñu njëkkee nañu kaa tuddee message boo xam ne ngay jàllale wala laay biir li ko mën a tuddee toujours dama koy wax bokk na ci ñi nga xam ne war nañ di wax mooy ñuy tuddee borom xam-xam donte ñun bokkuñ ci waaye ñooñu ci lañ bokk borom xam-xam yi ñu war a wax ci lañ bokk te tamit bu ñuy wax nañ xool seen diggante seen borom. ñooñu la yàlla wax ne mooy ne bu ñu dara ci loo xam ne war nañ cee dellu ci alquran ak sunna nañ dellu ci borom xam-xam yooyu comme ni ñu ko xamee te ñëpp xam ko te ñu yàgg cee wax lool waaye ba léegi daa mel ni saafara amul te saafara war na am te mën na am loolu bi ñu waxee mooy nañ xam fi ñu jëm lenn de liñ bëgg wax mooy ne alxuraanul karim bi nga xam ne moom mooy suñ delluwaay wax nañu ci biir téere bi ne al amnu maanaam jàmm wala dal ak baat boo ko mën a firee loolu li alquran di woote la bëri na si ay aaya yoo xam ne subhanahu wa taala dañuy wax ne nañ doxee principe boobu ndax loolu moom mooy tax ñun ba ci jaamu yàlla ji ñi war def ñi mën kaa def comme nu mu waree waaye lu ñuy gis si jamono yi rawatina ci dëkk bi mooy ni nga xam ne noonu lañ nekkee te ñuy ay jullit loolu buñ ko ñemee wax mooy ñaaw na ñaaw gi mooy lan moo ne lu ñuy alquran tere yonent bi tere ñu ko ñun ci lañ nekk te loolu warul loolu warul maanaam bu fekkee ne ñeme nañ kaa kon ko warul ba loo tey xool mooy koy lijjanti te loolu wax naa ci commencement bi ne lu mën a nekk la loolu benn la ñaareel bi mooy jullit bu ne war naa bàyyi xel ne am na mabda boo xam ne yàlla moom moo ko waxoon yonent bi jibril ñëw indi ko waxoon na yonent bi ne ko defal lu la soob amal ma sita lan ndaxte dinañ la fay man nag ma may wax ne yow jullit bi bu la neexee ak koo mënti doon wala yow nit defal lu la neex ci àddina nekkal jullit di jaamu yàlla di dimbale nit ñi nekkal munaafiq di jaxase nekkal ku bon nekkal lu la soob waaye xamal ne am nga buur boo xam ne mu ngi lay xaar pour fay la loolu nga nekkee woon du ko kenn kon mbir moo mënta nekk rek fexe nekkee fa loo xam ne yàlla gërëm na waaye dañ xam ne tamit ay nit walla doomu aadama nekkul lu ñuy foye wala ci beneen yoon maanaam ab askan nekkul li ñuy foyee am ku jàpp ne ab askan dinañ ko foyee yaa ngi ndax sa bopp noonu nga leen di fo foyee yonent bi nee na dinañ la boole toog koo xam ne tamit dina la toroxal maanaam bu fekkee da nga nekk di toroxal ab askan yàlla dina la boole ku la toroxal kon loolu ñu ñu bàyyi ci xel man loolu laa jàngat ci lii xew fii waxuma ne kii moo ne ci dëgg wala kii nekk ci dëgg waaye li gis mooy ñépp a foog ne am nañ doole ba tax ñi def lu leen neex waaye nañ xam ne loolu ñuy def yàlla dina leen ko fay kon ñu bàyyi xel ci loolu ñun ñun ñun askan wi ñu bàyyi xel tamit ci ñoon di def loolu waaw ñu mën a xam fi ñuy jaar tàmbali woon nañ fee wax loo xam ne am na yaakaar ne jullit bu fekkee ne mu ngi dundee noonu dina nekk ci xéewal dina nekk ci jàmm mooy waxoon nañ ne bu kenn njott ne mën ngaa jàmm yàlla ci ay jëf ëllëg sa jëf yooyu noonu yóbbu la aljana amul ba ci yonent bi yonent bi jàngal nañu ci boppam ne ba ci moom lu dul yàlla doo ci yërmaaneem ñu waxoon ne bokk na ci ñu joxe yërmaane yàlla ay mbir bokk na ci li ñuy tudd te lii ñuy tudd yàlla moom moo ko indi si alquran ne man maa leen ko dig ne boo leen ko defee ma jox leen xéewal kon ndigee bi nga xam ne yàllaa koy def dañ kaa war a gëm bu ci njëkk ci li nga xam ne yàlla digée ne ne jullit bu ko def dinaa ko jox xéewal bokk na ci yërmaane moo ne wax na ne boo leen ragalee yàlla يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم يلا وانا تي من بولن يا الله يندلني لن لا يالا تفعل من دينا لن تفعل فرقان تموي نافع با نين ak ما تقلقوا tekkali ko kon li ñuy dund buñ buggee xam lan moo ciy dëgg ak la ciy neen nekk ragal yàlla ragal yàlla jooju bu nekkee ci ñun moo ne yàlla du ñu def ñi dem ci neen mukk ndax dinañu xamal lan mooy neen xamal lan mooy dëgg te fu ñu ko xamee ñaar yooyu bu ree bu leeree si ñun rek mooy dinañ xam fan la ñuy jëm loolu yàlla moom moo ñu ko dig kon li ñu dénk suñu bopp di leen ko dénk mooy nañu ragal yàlla. mu dina dinaa ci teg jéggal leen seeni bakkaar ba pare dinaa leen jéggal naa leen faral seen bakkaar ba pare jéggal leen ndax yàlla moom mooy borom ngëneel ku màgg gi kon yàlla bu ñu liggéey loolu mo nañ kaa gëm te fexe kaa jëfee moo tax dañuy wax xéewal bu gën a rëy mooy ku yàlla may nga mën a alquran di ko settantal di xam lu nekk ci biir alquran ji boobaa sa dund dina neex ndax jafe-jafe yëpp amul benn boo xam ne ñoo na dund na yàlla wan nañu yoon wu jëm waaye doomu aadama moom moo mën a tooñ mooy ku réer ki loolu benn la ci ndigal yi nga xam ne yàlla jox na ko te bëri aaya yi nga xam ne wax na ko bokk na ci ndigal yooyu ndax alxuraan dafa ñëw wàcc pour lan pour fexe jox bilit bi mu am bonheur ci àddina bi ëllëg bu dajee borom bi borom bi gërëm lu moo tax moo wax ne taaha ma anzalna alayka alqurana li tasqa illa tazkiratan li ma yaxsa ci yow pour ngay texeat yi di di ñàkk solo ci àddina bi di dugg ci ay jafe-jafe kon alquran dafa ñëw pour jox ñu li nga xam ne moom lañ soxla te mooy ñaam gërmaane yàlla fi dunya wal axira kon bokk na ci ndigal yooyu mooy alxuraan wax ne ud'uuni astajib lakum ñaan yonent bi sax sallallahu alayhi wa sallam ne ne mooy jaamu yàlla kon buñ demee ba toll ci di jàqaat yi di am lu ñuy ragal yàlla mu ne ñu man de digg naa leen ne boo leen ma ñaanee ma may leen ma nangul leen li ngeen ñaan waaye loolu day fekk ragal yàlla jiitu ko nekk ci lu yàlla gërëm jiitu ko ndax amaan na koo xam ne mu ngi ñaan yàlla te fekk la muy dafa xaraam la sol xaraam lépp loo xam ne rek mu ngi koy utiliser dafa xaraam kooku yonent bi nee naka lañ koy nangulee kon ñaan dafa am ay saako jafe-jafe yi xew ci àddina bi ci jullit ñi ci réew mi ñaan mën na kaa dindi waaye lañ dëppoog sart yi nga xam ne moom la yonent bi wax ci xadis bi nañ fexe ba am ragal yàlla la yàlla daganal digle ko ñu nekk ci lam xaraamal tere ko ñu bàyyi ko loolu bu boobaa ñaan yi ñaan jaam yàlla lay nekk yàlla danañu nangul ndax yàlla moom moo ñu ko dig kon loolu tamit ci lu am solo la bokk na ci di fàttaliku borom bi subhanahu wa ay mbir la yoo xam ne mën na kaa jàpp mu tuuti fekk lu am solo la moo gën de toog tijji salaam yi di wax ci deri nit ñi te loolu lu xaraam la wala ngay wax ci mbir moo xam ne bu si ñaar jotee ñetti jot si mën na yàq ab dëkk nga dem ci lii moo gën ndax yàlla subhanahu wa taala dañoo dig ci alquran ne fazkuruni tudd leen ma di ma fàttali azkurkum boobaa ma tudd leen di leen fàttali kon tudd yàlla lu am solo la ndax boobaa yàlla da lay bàyyi xel mu wax ko ci alquran bu bëri bëri wa zakirina allaha kathiran wa nu mu tëjee aaya bi am te ne si ñun muslimin na ñooñu yàlla préparé nañ loo xam ne njëggal xéewal bu rëy boo xam ne yàlla moom mu ngi leen koy xatul mu ngi leen koy préparé kon war nañoo bokk ci li ñuy jaamoo yàlla mooy di tudd yàlla lu bëri loolu bi ko defee lu ci am ci xéewal mooy la may ngërmaane yàlla mu ngi ci te mooy yàlla jéggal te loolu wax nañ ne mooy li nga xam ne mooy may jaam bi mu dem aljana tudd yàlla nag moom borom xam-xam sopp nañ ko ci boo nekkee ci maanaam ci yomb-yomb waaye bu bàyyi ba nekk ci jafe-jafe soo ko dellu ci yàlla déedéet nañuy dellu ci yàlla bu nekkee ci yomb-yomb nga xam ne bu nekkee ci jafe-jafe buñ dellu ci yàlla yàlla mën ñëw faale yàlla kenn kenn kenn tënku ko lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan ahad kon jullit bi war na di bàyyi xel toujours ne borom bi mu ngi fi mu koy fàttali bokk na ci li nga xam ne yàlla diggé na ko ne boo leen ko defee mu indi leen xéewal mooy istighfar ay nit dinañ nekk ci ay jafe-jafe ci mbir yoo xam ne kenn xamu ko ragal ak xeetoog moom lépp dara yóbbewu leen si lu dul bakkaar yi bëri ah, bakkaar dafay dafay ay ay ay ay masaib wala ay musiba buñ bëggee yooyu teggeeku yàlla subhanahu wa taala nee na ci dénkaane bu ñu joxoon Seydina Nuux ne jéggal leen yàlla subhaanahu wa ndax moom dafay jéggale boobaa yursilu sama aleykum midraara boobaa asamaan su fekkoon dañ téye mën na leen am taw yàlla dina bàyyi asamaan si istixfaar da joxe dina leen jox alal jox leen ay doom te loolu bu ko waxee mooy dina leen jox koom-koom bu bëree bëri ba nga xam ne da ngeen ko mën a utiliser waaye fekkee ne ñi ngi am koom-koom boo xam ne dañ koy dégg rek ñu koy wax moom ay nax la ay ay lan la mënuñ kaa utiliser mooy nekk bu si ñun waaye ñu ngi gis ñeneen ñu koy utiliser léegi nag mënuñ xeex pour loolu dañ man de gis naa ne bu ñu istigfaaree yàlla mën nañoo woon yoon woo xam ne dinañ mën a utilisateur bañ kaa jëriñu ko kon yii ay ndigal la yoo xam ne yàlla jox nañu ko pour jullit ñi moo tax li ñuy wax mooy jullit yàlla subhanahu wa taala bàyyilu ko solution ci ay mbiram mbir mum dem rek am na ci maxraj am na solution boo xam ne mën na cee jaar génn kon li ñuy wax yàlla ya mu ngi ya jullit ñi yàlla mu ngi ànd ak ñi jullit ñi nag mooy ñan mooy ñi nga xam ne gëm nañ yàlla te nekk ci lu yàlla gërëm chaque jour ñu wax ko kon buñ buggee bokk ci jullit ñooñu yàlla di leen dimbale mooy dañ fexe gëm yàlla nekk ci lu yàlla gërëm lépp loo xam ne yàlla bugg ko ñu fexe kaa dindi ci ñun dindi ko tamit si suñ société yi ndax baaxul nekkul loo xam ne moom moo méngoog li nga xam ne moom la yàlla bëgg ci àddina bi ndax ni ñu koy waxee mooy yàlla dañu fi indi pour ñu defar àddina bi defar lépp loo xam ne yàlla na ko ci àddina bi bu ko defee ñu mën am li nga gën borom subhanahu wa taala loolu moy li nga xam ne moom ko war a fàttali suñu bopp ko di ñaan yàlla yàlla may ñu ak def ñu ay wa ma allah bi aziz wa salaamu aballahu ila ghayr